au 9h50 mooy doog a jot on va finir laata Mouhamed Ndiaye di ñëw pour revue de presse bi recevoir association des handicapés du Sénégal ñu ngi leen di nuyu euh, gërëm leen tey jii seen teewaay ci euh, plateau bi alors d'abord euh, dama bëggoon ñu waxtaan tuuti rek ci tënk fan la mbir yi toll ci wàllu lii ñu tuddee réinsertion dans la société tey ji suba ñu ngi kaas naan entreprise yëpp ba ci ñun ñii la ñu koy commencé tey jii handicapé bu toog ci chaise am bu ñëwoon fii du am fu jaar ndax ngir mettre leen à l'aise te loolee bokk na ci combat wu seen association. donc ñu ngi sant di gërëm ñëpp encore une fois. jërëjëf président dafa ah. fekk vraiment invité plateau tey quoi vraiment. ñu ngi sant TF1 di sant euh, monsieur Youssou Ndour. Mm-hmm. équipe bi vraiment ñu ngi liggéey au niveau Sénégal. Mm-hmm. surtout mooy yow en tout cas. Mm-hmm. donc euh, di vraiment remercier le président Macky Sall lu mu def handicapé depuis boobu ba léegi. donc euh, depuis ñëw ci pouvoir bi comme décret avec carte d'égalité des chances. xamante ni dafay portant xamante vraiment day vraiment valoriser les personnes handicapées yi. Mhm. di leen intégrer ci société bi quoi. Mhm. xam ne ci dem bokk. Mhm. Euh, président il a compris dafa am vision ci ñun. donc euh, moo ñu obligé ñu yëpp vraiment tout l'essentiel vraiment jéem ko jàppale soutenir ko vraiment mu dans sa mission. Brésil Sénégal yëpp ñoo yore chion. donc moo tax il ñun sax li ñu gën a li ñu gën a soxal mooy euh, toppatoo gi euh, nit ñi war a toppatoo toppatoowee way laago yi muy silmaxa bi yow mi euh, say bët du gis muy koo xam ni dafa toog ci chaise ak handicap boo mënti am naka la société bi war leen di leen gën di toppatoo ba beddi du ci am. Mhm. waaw jërëjëf euh, Pape Cheikh. mu mhm. euh, présenté ko c'est Toumani mooy président association waaw au lieu au euh, xaw a kii a tuuti. au lieu que association. Uh-huh. c'est le mouvement des handicapés républicains. d'accord mouvement des handicapés républicains. bu ñu aussi tamit loolu mënuñu bàyyi association yi ginnaaw. li mhm. tax mënuñu bàyyi association yi ginnaaw parce que ñun ñëpp ci association lañu jógee. Mhm. tënk benn kuréel. teg mouvement. parce que aussi tamit dañu xool ni les associations dafa xaw a limité wu. ba parce que aussi tamit Pape Cheikh. Euh, da ngay am jékki-jékki ñu am jafe-jafe si côté déplacement yi am côté si euh, da ngay gis benn entreprise boo xam ne si du prévoir les personnes en situation de handicap mhm. ñu war a jàll wala dara mhm. léegi nag ñu xool nu ñun Pape Cheikh mhm. loolu lépp dañu koy defal mais au lieu ñu koy defal ñun tamit handicapé yi ëllëg dañu bëgg nekk ministre ëllëg dañu bëgg nekk député ëllëg dañu bëgg nekk président ba tax na loolu tax na ñu teg benn kuréel. Mhm. dugg si politique bi. Mhm. teg mouvement. Mhm. war a tey ñu ñu aussi tamit ñëw fii. am bis yoo xam ne dañu koy ñëw pour am ko. mooy carte égalité des chances wax nga ko léegi. si carte égalité des chances ñu toog ay at ay président président yi fi jaaroon yàlla def na seen loxo jaaru ci waaye bi président Macky Sall ñëwee. si carte égalité ci la suñu di génn. carte bi moo nekk nii. carte boobu moo lay permettre. boo bëggee feebar boo feebaree faju boo bëggee dem dikk bi yëpp ñu yombal la ko parce que mm-hmm. tey jii li nga xam ne si moom la andi carte bi boo ko amee lan mooy avantage am ak euh, waaye laago euh, naka la ko mën a amee waaw xam nga tey jii te euh, exemple tey maa ngi yow tey tey tey maa ngi yow bu tey dem di wuti liggéey tey mm-hmm. ñu yoon am yem benn niveau tey mm-hmm. li nga ma mooy tey jii danga ngaa valide mais carte bi day eggale fi nga xam ne si tey jii eggu fa daf may mottali ah da nga koy wane rek dafa may day mottali sa mobilité te wàllu santé bi uh-huh. tey jii wér-gu-yaram sama wér-gu-yaram tey jii da nga daan dem hôpital taxaw di ràng yaa ngi mais bu yàgg bu boo ñëwoon taxaw di ko wax mhm. dañ naan la fan nañ ko bind léegi nag ak carte bi mhm. permettre na mhm. boo ñëwee boo taxee ba wanee kart bi lu bëri dafay dina la permettre. sa lépp dafay yomb nga nekk priorité. nga nekk priorité ko woon. de toute façon am na reportage bu parce information bi moo des ñu bëri ah. information bi amuñu ko. Uh-huh. amuñu information mais boo amee ak laago boo mënti am rek fan nga koy amee da ngay dem ministère ñu defaral la carte bi. c'est ça non carte bi dafa am euh, foo xam si fa ngay fa ngay déposer carte yi. Ah. xam nga carte yi tey jii muy am dañoo wax képp koo xam ne waaye laago nga bokk ci kuréel war ngaa dem nga inscrire ñuy joxe fa ñuy inscrire fan ak fan nañ ko inscrire. d'accord waaye carte aussi Pape dafa am jafe-jafe tuuti. Mhm. jafe-jafe bi mu am depuis président wax ko defar carte yi bañ génn décret ba lépp génn. Mhm. carte yi dafa des. xam nga aussi sénégalais boo nee dem leen ngeen ci. Mhm. dañ naan non luy dëgg. amut mais tant que génnul duñu gis. looloo war a carte bëri tey ji maanaam ñi nga xam si ñoo demandé. li génn mu ëpp lu demandé. waaye aussi tamit si aussi tamit bu baax président. aussi tamit dañu bëgg sénégalais boo nee dañuy defar. yàq bi dafay bari. souvent carte bi li ñuy wax nañu ko génne ba fii ñu waxee yow loolu tamit dañuy lance appel grâce ci bi. Mm-hmm. fi ñuy waxee aussi tamit li président wax nañ ko ci jàppale. Mm-hmm. ba ñu nee carte yi ne génn ba fii may waxee yow. Mm-hmm. am na ñoo xam ñoo ngi joxe ni carte yi génnut. loolu tamit beneen problème la. carte yi président bi mu ñëwee dañuy les vingt cinq mille yi nga xam ne ñu doon jox euh, li nga xam si mooy. bourse yi bourse sociale boobu. Mm-hmm. dañu ne carte comme carte bi. Mm-hmm. boole naa la ci vingt cinq mille. d' accord vingt cinq mille bi bu ah, ah vingt mais naka la ñuy def pour am carte bi xam naa ne yéen ñi moom politique moo leen intéressé. waaw waaye man politique waaw man amul Macky amul président Macky amul qui que ce li ma gën a soxal mooy. askan wi di seetaan. Uh-huh. Euh, ak euh, nekk ay handicapé. et je sais que yéen seen combat itam loolu bokk na ci. Uh-huh. pour ngeen gën leen politique yéen ay politiciens ngeen nekk yéen a tamit xamal tax xamal tax carte bi li am am solo uh-huh. gis nga parce que manifestation bi ñu def nii uh-huh. dafa dafa dafa dafa ànd ci loolu parce que président dañu uh-huh. képp koo xam ne si yor nga direction Youssou Ndour ak keneen ak ñëpp yoo xam da am ay ubbi société ah. jël waaye laago ñu liggéey fa bi mu waxee bi mu defee appel boobu am na ñoo xam respecté wuñ loolu waaw quand même respecté wuñ loolu mm-hmm. ñu respecté wu lool mm-hmm. dañoo bëgg la ñuy organiser bis bi mm-hmm. pam pour sargal ñi nga xam ne dañoo respecté loolu ñi sargal loolu ñu ñu deful loolu ñu tax ne président ñi dañu ko war a respecté euh, man mii ëpp ëpp la xam-xam gënuma laa jàng da gis koo xamante Mm-hmm. xamul dafay nekk ci chaise mais dama ko sopp lool Aïssatou je pense que dama ko fonk fonk fonk fonk fonk ministre na defe naa jege na président Macky ah, Sall mosoon na ko woon yaa naa d'autres yaa naa d'autres am nañu handicap te ay jàmbaar yu mag lañu waaw waaw dégg la dégg la madame la conseillère Aïssa Cissé voilà vraiment ku baax la xamal ne dafa jàng intellectuel écrivain la intellectuel de très haut niveau donc euh, écrivain la man instant mi muy grand ministre ministre conseil spécial près du président Macky Sall chargé des personnes handicapées et des groupes vulnérables et les petits enfants ah. donc euh, yëpp vraiment ñu xam yaa am na ko toutes les compétences mhm. donc mu ngi liggéey pour handicapés foofu mhm. chaque fois vraiment boo ko kiiyee aussitôt transmis le message par le président mhm. donc handicapés moo tax mu toogoo foofu ak petits enfants ak les groupes vulnérables très bien donc liggéey boobu vraiment mu ko du jaar yoon xanaa kay vraiment nañ ko jéem a doole rek dolli et puis vraiment aussi moom tamit nga gëstu handicapé yu bëri. man nag damaa man nag damaa mën a tooñ. xam nga li ngay wax nii kenn comprendre duñ ko. moo tax may laaj bu ngeen dee meeting. <laughs> tumaani mooy wax wala yow yaay wax. man maay wax <laughs> waaw. <laughs> man maay parce que tumaani politicien nga. mais xam naa ne bu ngeen dee meeting tumaani am na fitu taxaw naan leen camarade ñëw leen ñu àndandoo xeex. waaw xam nga xam nga Pape euh, Pape euh, euh, gis nga mitin def nii. bien vrai que dañoo bëgg sargal président. waaye nekk na mitin boo xam ne aussi tamit. Mhm. défilé pour les personnes ànd. wallaahi ñoom ñëpp dinañ ñëw. di tax donc boobu. samedi samedi ngeen koy amal King Fat Palace. il faut ñëpp ñëw ku ci bokk ku ci bokkul na ñëpp ñëw ku ci bokkul li tax ñu li tax yi bokk si yeneen parti yeeg. waaw ak yéen ñëpp mm. invité nañ leen pour ñëw bokk si li nga xam ne ñëw ànd ak ñun si xeex bi nga xam si si ma ba pare aussi ñu sargal président mais aussi bi sañ Pape uh-huh. nga may ñu tuuti ñu gërëm ay ñu gërëm parce que tamit uh-huh. euh, am na ñoo xam ne aussi dañu accompagner depuis boobu ba léegi uh-huh. euh, ku mel ni monsieur Toumani Camara mi yàlla xam na ni aussi visuel la waaye aussi tamit nekk na ko xam ne sàggunu fépp fu mu war a dugg moom mu fi dugg moom wala invitation bi moom moo ko waral moom moo ko waral yaa ngi dégg euh, mhm. moom mooy nekk Pikine département de Pikine waaye aussi aussi tamit ñuy gërëm le président mhm. aussi aussi mooy waral bis bi mhm. mooy maître Youm parce que maître Youm aussi moom moo ñu tënk téye lépp Omar mu baax mi waaw moom moo téye suñu lépp ak Luc Sarr téye nii affaire bi dafay am merci ñoom ñoom rek nañ ci yaakaar Moussa Diop borom Dakar dem dëkk kenn kenn du ko fàtte parce que aussi mooy mooy lépp waaw mooy bu sañoon mu ñëw mm-hmm. Anta Sarr jàkko bu ñu sañoon moom mu ñëw mm-hmm. Moustapha Diop ñoo koy xaar mm-hmm. Adja Marie Diouf Zac Mbao ñoo ngi koy xaar ak euh, ki ñuy waaw ah, ak Moustapha Niass ak euh, aussi tamit euh, nga département de Pikine uh-huh. bu ñëwee ñu ni Ablaye Timbo bu ñëwee uh-huh. Timbo rek day tudd ñëpp Pikine waaye ñoo ko bàyyi Diouf aussi tamit directeur de la protection des droits de l'enfance de l'enfance et du groupe euh, vulnérable euh. ñoo ngi xaar ak Adja Amar euh. ak képp koo xam si aussi nga dégg sa tur nga dégg sa dañoo bëgg nga ñëw comme bis ba pap yow invité la man kay damay ñëw parce que bi ñuy joxe dañoo bëgg ñu teg la non mais mii laa bëgg a xam nan lay nan lay meetingé quoi man loolu laa bëgg a fekkee Toumani Toumani na gëree ah, Toumani mooy suñu gëree. moom dafa la mooy gëree la. waaw gëree la koo xam ne merci merci en tout cas jërëjëf merci beaucoup yal na yàlla jàppale leen bu baax. ñoom nag muy mouvement boo xam ne dañuy politique ay handicapé ñoom ñoo ko ñoom ñoo ci ne gërëm président bi Toumani ak képp koo xam ne rek bokk nga ci donc dañ leen dem jàppale leen incha allah ci King Fahd Palace samedi à partir de 16h gërëm tamit Aba bu baax ci ni mu leen di jàppale